wala tu regardes ce euh, li muy def exactement après nga am loo ko laaj. wala je sais quoi oui vas-y vas-y ma bàyyi ko mu nuyoo après. ma ko laaj d'accord après on te retrouve yàgg Merry Beye Lamine merci d'être là ñu ngi lay euh, nuyu et puis félicitations. merci euh, je vois que yaa ngi lu bu baax. j'ai j'ai regardé presque beaucoup de médias yoo xamante ni jaar nga fa pour wane liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey d'abord on te laisse ce soin nga nuyoog téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan Lamine. Mm-hmm. maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan à travers la TFM di nuyu euh, du Ndiaye mi sànq nga xam ne moom tamit fierté ci ñun tout comme vous aussi donc euh, maa ngi tudd Mouhamadou Lamine Diouf ma nekk étudiant en journalisme et communication par ailleurs ma nekk euh, initiateur d'un jeu de culture générale en ligne ñu koy woowee I am online pour le moment une petite précision nekkagul application mais mu ngi nekk en phase pour nekk application

maintenant le jeu se passe à travers mes statuts WhatsApp. d'accord mu ngi judd ci contexte Covid 19 bi. Okay. vu qu'à un moment donné on s'ennuyait. Mhm. parfois on savait pas trop quoi faire. Mhm. donc ci noonu je me suis dit mais pourquoi pas créer quelque chose d'important. Mhm. quelque chose qui va nous apporter de l'importance. ku nekk xam ne journaliste la journaliste yi dañoo bëri titre <laughs> non Cheikh Yérim Seck ah vraiment euh, Pape Abdoulaye Der ah euh, vraiment Barka El euh, Hadj Assane Gueye. ah tu journaliste yi ñoo bëri tiital nag. ba tey ba tey génnoo génnoo ci loo boobu. non mais évidemment parce qu'ils sont des journalistes. <laughs> ah ouais, ah ouais. voilà moi je suis un animateur. voilà euh, mais da ngeen bëri tiital quoi oui comme vous savez. et je vois j'entends à la régie. sa nawle euh, euh, journaliste yu naan wuu il parle bien il est éloquent c'est un ah, journaliste arrêtez-moi ces trucs là <laughs> arrêtez-moi avec ces histoires descendez de vos arbres <laughs> ay Babacar Fall jaay maanaa quoi oui euh, c'est le grand jury mais ku la gis xam ni t'es un journaliste c'est ce mhm. qui fait votre charme yéen journalistes yi donc mhm. c'est un jeu disponible via WhatsApp mhm. oui Covid bee taxoon nga nga créer ko mais c'est quoi c'est-à-dire euh, tu es passionné de euh, du digital mhm. euh, wala da nga def formation bi en mm -hmm. plus d'être euh, journaliste comment mhm. est né euh, ce jeu mhm. ban déclic moo ñëw ba nga ni OK c'est parti il faut que je crée un truc pour permettre aux gens de passer du temps OK déclic bi la donc dañoo toog durant la Covid-19 amuñu woon lu ñu doon def surtout nous les élèves et étudiants on savait pas trop quoi faire. Mmh. On s'ennuyait. Mmh. Donc à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose qui va nous apporter de l'importance mm. loo xam ne dinañ ci mën a jàng. Mm. di à l'agréable. Okay. Parce que quoi que l'on puisse dire, mm. la plupart du temps sur les réseaux sociaux dañ fay nekk on met que des futilités. Wow. Ah. donc je me suis partagé rek. évidemment ak di <laughs> et cetera c'est bien c'est très bien. quand même à un moment donné aussi nañuy def loo xam ne c'est utile. loo xam ne xam nga lu ñuy wax rek. l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde c'est ce que disait Nelson Mandela mhm. ñun donc loolu la ñuy jéem a mettre en perspective mhm. donc ci loolu laa ko adapté sur les statuts WhatsApp mhm. je pose mes questions à travers les statuts WhatsApp su ma ko posé maintenant day am ay principes le jeu a principes su ma ko posé la première question à avoir donné la bonne réponse mooy marquer le point la première personne aussi à avoir accumulé dix points mooy remporter jeu bi maintenant dogguma la foofu <laughs> c'est pas c'est pas l'ordinateur qui propose propose des questions mais il y quelqu'un qui est derrière euh, le portable pour poser les pour poser toutes les questions évidemment c'est pratique ça waaw damay poser comme nit ñi ni ñu dugalee statut damay poser question ci statut bi nit répondre bu mm. répondre ma capturer mm. c'est compliqué moom certes mm. mais bon dama koy def avec beaucoup de passion su ma capturer dugal dinañ gis carrément kan moo njëkk a répondre ma marqué ko le point. donc ci loolu la noonu la jeu bi di demee et petit à petit le jeu est en train de faire son bonhomme de chemin. ci Covid bi durant euh, comment dirais-je kii bi couvre-feu bi. le jeu se jouait tous les jours. c'est-à-dire du lundi au samedi. parce que boobu amoon nañ temps. mais vu que ne couvre-feu bi jug na. actuellement nii parfois suñu occupation yi dañuy të. Mhm. daf ñuy bloqué ci yenn mbir moo tax léegi évidemment moo tax léegi euh, week-end yi laa koy def. les vendredis et les samedis. d'accord vendredi. Mhm. góor ñi ñooy jouer les mhm. samedis jigéen ñi. D'accord. Voilà. À partir de quelle heure, genre À partir de 21h30. OK, donc 21h30. yi nga xamante ni ñoom ñoo mën a jouer. Effectivement. Euh, ci euh, am online. Effectivement. Pourquoi mu tuddee ko am online Je suis en ligne. D'accord. Je suis en ligne, je me mhm. maa ngi connecté maa maa ngi partagé maa ngi <laughs> maa ngi jàng. voilà donc ñun actuellement njàng bi dañ ko war a mën a adapter aussi avec les outils de l'information et de la communication c'est mhm. primordial mhm. suñ ko deful rek yenn dëkk yi dañuy raw ci lu bëri mhm. donc ci loolu la ñuy jéem a def lu ñu war comme mag ñi def nañ lu ñu def ba pare maintenant c'est à nous maintenant d'emprunter leur chemin ce sera très compliqué certes mais on fera de notre mieux donc tu tu tu tu essaies d'aider euh, surtout euh, xale yi pour ñu xam parce que c'est des questions de culture générale. kan mhm. euh, moo yore rédaction bi il faut quand même une rédaction pour les questions. Mhm. Euh, yow yaay gérer lépp. bon naa wax daal ne maay gérer maay nekk ci kanam. Mhm. mais am naa de mentors yoo xam ne dañ may aider ci question yi. d'accord ñoo xam ne il me parce que Google ak Larousse doyul de tout. non non vraiment des ne suffit euh, pas des spécialistes yoo xamante ni ñooy mën a teg. ay mbir yu. évidemment donc assez assez assez am solo. voilà donc am na ñu nekk sama gannaaw. ñii ñenn ñi ay professeurs lañ. ñenn ñi ñu ngi nekk ay juristes. Mhm. et cetera et cetera mhm. ñoo xam ne ci yenn question yoo xam ne man awma ci maîtrise noonu. Mhm. ñoo ma ci jàppale. pour que mu mën ko partager ak nit ñi. et au delà de ça aussi am na focus yu ñuy def. ci des personnalités phares yoo xam ne parfois jeunes yi xamuñ ko. mais ils ont fait quelque chose boo xam ne lu jara bàyyi xel la. jeunes yi xamuñu ko ñoom tamit dañ leen di jéem a mettre en exergue. pour que gars yi xam leen pour que gars yi tamit mën a. jàng ci ñoom ci lu bëree bëree bëri. Mhm. évidemment super j'ai vu aussi que parallèlement yaa ngi activité euh, yu euh, bëri c'est-à-dire tu organises des concerts j'ai vu mhm. euh, Premier Sénégalais a créé un jeu en ligne de culture générale euh, je vois aussi que tu es trop jeune booy nga euh, 23 24 c'est bien t'es un enfant mais terewul yaa ngi teg yu yu am solo qu'est-ce qui lan moo pour vouloir toujours faire des trucs pour des jeunes comme toi fii Sénégal organiser des concerts promouvoir euh, ce euh, jeu de culture générale bi pourquoi euh, jógewuloo France ne da ngay def que pour toi mais tu fais pour d'autres jeunes comme toi. ok en, en plus une petite précision. Hmm. Euh, peut-être de Paris moo mën a tax parfois ñu bëri dañuy foog ne France laa nekkoon et hmm. Hmm. mais fii laa juddoo. Ah, tu n'es pas de Paris. fii laa juddoo. d'accord